am benn xew-xew bu am muy la xaw a doy waar fii marché bi te bu ñu réseau bi xel yu bëree bëri dañuy xalaat mais nag tey am na fi waaye nag nañu bàyyi xel ne am na fi waaye ci membre yi réseau bi ñi nga xam ne ñu mooy mooy wala coow yi ñoom dañoo dox est muy ñaari bu yoo xam ci réseau bi dañoo dox ba ñëw fi loolu na ko nit di bàyyi xel bu baax a baax. li xew ci réseau bi lan la. waaw mu am euh, ñaar ñoo xam ne fi doon xeex ba kenn ki jam bi ba sonn ba woon a sàpp ba des ko. jàpp nañ ko ba teg loxo bi yoon waaye ñi nga xam ne ñooñu seetaan ak ñuy déglu nañu bàyyi xel ne ak semaine fii ci réseau bi la amee mais ñi fi bëm bokkul ci réseau bi ñaari samba boobu yoo xam ne ñoo dox ba ba expliqué li muy ni daa defal daam fu ñu toll la ñu ci ndax man lii bi am sax mën naa ne ndax man euh, sànq laa fi jógee dem kër sëñ ma loolu ak ñi ma ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon dem ñu doon waxtaan ak moom fii lu def réseau bi ak di ko jëmee kanam bi ñu demee ba tuddee la ma beddaay kase bàyyi laa man ko mbàkk bu ne seen bërëb bi da am na lu fa xaw ma ne ko lu fa xaw di mu ne dafa am lu doon après police ñu woo sappo ñu ñëw léegi sappo nag jël na nguur si xam nga na ko daal ki nga xam ne moo def nag su noonu nag kooku police teg na ko loxo mooy bu yóbbu ko mm. man loolu ñoom naa wax dëgg franchement pare man maay président réseau mais xamu kenn wax dëgg xamu leen bu ma tase woon ñoom xaw ma amul kenn ko ci xam mhm. mais nag euh, nañu bàyyi xel euh, secteur bi fii ci ginnaaw mhm. ñoom ñu bëree ba ñoom ñoom di wax fi wax ne ñoom fi la ñuy fréquenté mhm. mais li ñu bëgg nag mooy fii moom à part de sodi moom moytu kenn kenn kenn dafa da nga fii ba fi def naka suul noonu loolu nañ ko bay xel bu baax a ba ñoom ñooy def nag su ñoom ñoo ko def fii wuñ koy taxaw loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax sax su dëgg ñu def def ay naka suul noonu loolu li ñu bëgg mooy dafay liggéey gàll ñoom mu ne saay fu dee man de ci àll ba bu ñëwee fii nekk xeex ak rayante ba ba kenn ki jam moo ba ba na waa trop trop trop trop trop léegi nit ñi nit ñu jëkk rek ñu lay loolu ñu sàkk mooy bëgg ku ñu dooleel rek ndax sax suñu mel nii bu amee ñun dañuy jël teg euh, loxo comme c'est que euh, police ñu ngi dégg ba ñu seetaan ci bëgg mooy ñun julli yàlla gis yooyu yokk na suñu sécurité ba nga xam ne li mel nii dootu fi am lii moom bëgguñ ko fi mosuñ bëgg am bi fi amit man boobu fekk na fi am mu am wax di ma man damaa ma man doon waxtaan moom. voilà lu ma la xam ne rajo bi li fekk lii am.